waaw comme ni ngeen ko waxee ñu ngi fi tey ci euh, mbir mu tiis boo xam ne am nañ ko mën na léegi euh, fukki fan ak juróom wala li ko wees jiyee euh, boo xam ne xew na ci ay sénégalais ay doomu sénégalais yoo xam ne ñu ngi woon fële ci Denver Colorado muy juróomi sénégalais ki ci mag je crois que trente à trente trois ans la am donc yàlla def ñu faatu ci daay donc incendie muy loo xam ne lu metti sénégalais lu metti umma islamique yi lu metti en tout cas. àdduna euh, bi la parce que dee boobu dafa metti waaye aussi ñu del jël yëpp delloo ko ci yàlla parce que yàlla kat mooy moo lay indi ci àdduna moo lay delloo donc moo xam lu tax mu def la waaye dañuy avant tout jaale vraiment la famille la la famille éplorée mooy la fami Jool ak mbokk yëpp ci mbir mu tiis mi yàlla def na ni comme ni ma ko waxee ñëw nañu démb aéroport ñu yóbbu leen hôpital principal après tey ñu indi leen fii au cimetière musulman du Yoff ñu jébbal leen léegi yàlla donc euh, am nañ yaakaar vraiment que yàlla dina leen xaare àjjana yàlla yóbbu leen ci àjjana yu gën a kawe maintenant nag li des li mooy vraiment di jaal ñëpp di météo affaire bi yaakaar na lii et puis ñaan yàlla yi dina yal na fi gëj. l'enquête bi ñu ubbi lan ñu mën wax ci avancement. waaw enquête bi comme ni ñu ko kii comme ni ma ko waxee sànq rek euh, bi mu amee rek euh, police américaine en tout yaakaar na ne ne acte criminel la maanaam mooy nit moo jël moo def mbir mi. mais ba léegi yàlla def na ne arrêté guñu ñu ko def wane nañu ñett nit ñoo xam ne dañoo am ay masque xamaguñu nu dax euh, ñoom ñoo ko def wala ñeneen waaye en tout cas arrêté guñ ba léegi kenn waaye gëm naa ne police américaine muy police locale bi de Denver Colorado la police fédérale et le consul euh, du Sénégal aux États-Unis en tout cas ñu ngi def liggéey def seen kéem kattan pour vraiment jàpp ñoom te gëm naa ne li mu yàgg yàgg ñi def acte bi bu dee ñoom ñoo ko def dinañ leen téye dinañ leen yóbbu ci yoon. mu mel ni lu mel ni euh, yi euh, jox ñu leen gëdd bi ñu leen war a jox maanaam protéger wu ñu leen li mu waree. man du mu wax ni protéger wu ñun parce que mooy li mu wax sànq rek dëkk bu nekk def am loi am ak règlement am ni muy doxee. man li may conseil sama suñu mu mbokk yi man ça fait vingt ans bi ma nekkee aux États-Unis mooy boo demee foofu ñun xam nañ ñun Sénégal yi ñu ñu yóbbu ñun ay jàmbaar la ñu liggéey ñu yóbbu foofu li ci ëpp ay liggéey donc la ñu def mais des fois xam nga ne américain yi dafa am na ñu dundoo donc ñun li may ñaax nit yi di ñaax suñu bopp mooy boo demee foofu dana la liggéey yóbbu foofu nga bañ a dugg ci yenn yi je crois boo ko defee yàlla dina la dina la aar donc loolu man laay laay gën a ñaax nit yi loolu laay ñaax sama bopp. taxawaay état ci dëkk bi taxawaay état moment Sénégal lan la war a waaw je crois que ci euh, ñu ñëw ñu wàll ci. taxawaayu état ci lii di am ci li nga xam ne mu ngi dal suñu mbokk Modou Modou ci àll bi taxawaayu état lan la ci war a doon wàllu ko. Mhm. loolu état mi def liggéeyam bu mu mat sëkk parce que loolu diggante état ak état la am na loo xam ne man mënu ma fa àgg yow mënoo fa àgg donc gëm naa ne entre président ñu ngi def seen liggéey entre euh, diplomate ñu ngi def seen liggéey li des li mooy ñun nañu xaarandiku rek résultat bi boo xam ne jëm mais gëm naa ne ñoom ñaar ñu ngi def seen liggéey comme ni mu waree pour que lii feeñ pour que lii aussi bañ a bañ a amati. jërëjëf